asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziara di rafetluwaat bu baax a ànd bi ngeen ànd ak ñun ñu ngi fii ci Touba Mbacké tey altine dëppoo ak ñaar fukki fan ci rakkaati gàmmu atum 1442 ginnaaw gàddaayu yonent bi salallaahu alayhi wa sallam dëppoo ak lundi 4 janvier 2021 ñu ngi fii ci euh, grande mosquée bu Touba ci ndigal li nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér moo ko joxe muy ndigal loo xam ne dafa jëm ci njàngum alxuraanul karim tuub delluwaat ci yàlla suñu borom waaye ñaan yàlla suñu borom li nga xam ne moo di mbas mi mu jëlee ko fi. li nag nekk liggéey boo xam ne saa su ne bi ndigal saa su bu ju bu jógee rek mu koy jox euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy yor lu ni mel ci njiital sëriñ Mamor moom Cheikh Mamadou Fadal Mbacke. ànd kook mbooleem rabita alxuraanul karim bi nga xam ne ñu ngi ci ànd ak ki nga xam ne moom moo di. Euh, Serigne Xaali Jaxate ak mboolem kilifa yi mu àndal njàngu alxuraanu karim bi waaye fii ci jumaa ji ñu fas yéene ànd ak waa daayira muxaddamatul xidma bi nga xam ne ñooy saytu jumaa ji waaye yor li nga xam ne moo jëm ci organisation lii di njàngum alxuraan bi ak mboolem daara yi nga xam ne rek dañoo nekk ci biir dëkk bi kon mbokk ñu fas yéene ànd ak yéen ci ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko ñu wan leen ko fii ci grande mosquée bu Touba daañu taataan ay kaddu yi kilifa yi nga xam ne ñoo yor liggéey bu ni mel ba ci xatmu alxuraanul karim bi ak kaddu yi nga xam ne moo fas yéene bàyyeekoo ci Serigne Mamor moom Cheikh Amadou Fadal Mbacke kon mbokki internet yi nga xam ne yéen a bàyyi xel seen site bi di Assalaamy TV kon fii nii ci euh, grande mosquée bu Touba ñu fas ne ànd ak yéen dégtal leen lépp lu fi bàyyeekoo ci li nga xam ne moo di njàngum alxuraanul karim bi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ bismillaahi rahmaani rahiim allahumma baaqi wajhi laahi taala alkarim wa bi hurmati rajabin wa sha'baana wa shahri ramadaana alladi unsila fihi alqur'aanu hudan linnaasi wa bayyinaatin min alhudaa wal furqaani wa bi hurmati kulli man azzamtahu wa kulli man azzamtahu salli wa sallim wa baarik anni abadan ala sayyidina wa mawlaana muhammadin waalihi wa saabihi wa sallam hada almaktuba mafatih albisri walamni waljanna fi lsalati wa taslimi ala muqimi sunna bismi llahi arrahmani irrahim allahuma alhamdulilahi alladi manna alaya bi xidmati rasul wa jaadali bi jaayi salla allahu taala alayhi wa sallama bi xayri suul wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin al amin وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تعالى مفاتح البسر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن wa anyaaba li kulli man i'tanaa bihi saadata addaarayni maa kifaayati hammayhimaa wa an yaghfira li jaami'i maghfiratan taj'aluhu kaman lam yuznib qattu wa an yaghfira li waalidayhi wa lil mu'miniina wal mu'minaat wal muslimiina wal muslimaat aamiin yaa rabbal aalamiin allahumma ya ra'uuf ya jamiilu ya baaqi ya rahmaanu ya jawaadu ya badiimu ya rahiimu ya jaanu ya baari'u innaka qulta inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabii ya ayyuha allaziina aamanuu sallu alayhi wa sallimuu tasliimaa labbayka rabbii wa sa'dayka wal xayru kulluhu biyadayka abduka raajil muhsinu zanni bayna yadayka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 tey jii altine di ñaar fukki fan ci jumaadal luula di ñeenti fan ci janvier ñi ngi fii ci jumaa ju mag ji Touba ci ndigal li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha joxe jox ko mbokki taalibe yépp te sàkk ko ci mbokki jullit yi mu ànd kook ñu ànd kook moom muy dellu ci suñ boroom tuubal ko jéggalu ko e, balonte ay àq sàkk sarax jàng alquran jàng xasiida defe ko tawasul ci suñu borom tabaraka wa taala ci mu yokkaat yërmandeem ci jaam ñi tolluwaay bii àddina bi am ci ay xat-xat mu teggi ko saafara ko te delloo ci jàmm akuk tal Euh, dolli ay tawfiix ak i ndimbal mel na ne fan laay alhamdu ca suba ba léegi euh, mbooloo mi bàyyi ko nañ ci wet gu nekk ñëw fii ci biir jumaa ji ak ci yokk yi waaye tamit ci biir dëkk bi defe naa ku nekk fa nga xëyee euh, alquran ji mu ngi jokkaloo ci wet yu nekk jumaa yépp ñu ngi teg alquran mbooloo yaa ngi fi di jàng ak dajewukaay yi noonu it la yaatoo ci biir réew mi ci kër sëñ Tuubaa yi ak barab yi nga xam ne yëpp murit yi baaxoo nañ faa dajee ba ca bitim réew waxee ko saa yëg nañu ne mbokki jullit yi tamit wuyu nañ sëriñ bi ci loolu mu sàkk woon ci ñoom kon alhamdulilah tey jii alxuraan ji gën naa gëndoo ci biir réew mi loolu nag day indi xel mu dal di dolli yaakaar ndax suñu borom kenn jaamoo ko lu ko gënal téereem bii rawat na mu doon ci ndigalal sëriñ Touba kon ñuy ñaanal sëriñ bi li mu bëgg te xam ne mooy muccuk nit ñi ak seen jàmm ak seenug yokkute suñu borom defal ko ci tey ñaan suñu borom nag mu guddalal ñu aw fanam te yokkal ñu ak wéram ba yaakaar yaakaari lislaam yi dajee ci ñoom ak sémb yu rëy yii mu ci am lépp suñu borom dëggal ko mu sottal ko ba defaat yeneen sottal ko di defaat yeneen di ko sottal ci barkeb Serigne Touba wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu raxibu ala rasulika nabi muhammadi salli wa sallim sarmadan ya samadi law aktubi salata wa taslima ya xayra barrin lam yasal alima yàlla salli wa tusallim kulla am على الذي كتابه خير دهام إلى نبي الله نور الدهر سل وسلما كل شارب للمنتقى أوسل بغير لوم بشارة تغمد كل يوم نوّر بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم لغفري wa kulla ma alayya anni kaffiri ya allah ya rahman ya rahim ya hayyu wa ya qayyum kulli yahmi ya atni al azama wal kitaba wa taqini al hisaba wal itaba allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin salaataka allati sallayta alayhi wa sallim ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin salaamaka alladi sallamta alayhi wajhi anna ma huwa ahluhu allahumma bi haqqi wajhi llahi taala alkarim salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa jal hadha almaktuba bi jaayi sallallahu taala alayhi wa sallama min muqaddamaati albishri wal amni wal jannati allati wahida almuttaquun amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin annabiy al-ummiy wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واحمد واذكر حقائدي واقوالي وافعالي واخلاقي وجعلني من احب الحامدين لك اليك وهب لي ان اكون بشاره لجميع الحمد بلا شيء يسوءني او يضرني واجعل كليتي من احب الحمد والشكر اليك واجعلني مؤمنا مسلما مسلما بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا yàllaahu salli abadan wa sallima ala alladi jaatoo li sullama sayyidina muhammadin wal aali wa saabi fil aali wal maali wal takfini bi jaayi radaila qabla intihaa'in qudri al fadaila wa bashiran bi jumlata al axyaari wa najjini min dar al axyaari wajal baqiyata mukoosi xayra waa taqni xablam taayin dayra yàllaaw yaa fi tusalli bi salaam ala allati laka bi hada alkalaam sayidina muhammadin wal ali wa saabi fi laali wal maali wajal bi jaayi naasimi kulli barakatan wa xayra kusrin kulli واجعل حقائدي منوراتي واجعل به كل ذا خيرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعزني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وهب له وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي اللهم بلغ إثار ما قرأناه ونور ما قرأناه وسيدنا ونبينا محمد والعقبى إلى روح شيخنا الخليل رضي الله عنه ونحن أبدا إلى أرواح آبائه وأمهاته وأسلافه وذريته وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد النبي والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. bismillaahi rahmaani rahiim bokk jullit yi fi teew yëpp bokki taalibe yi gannaaw bu ñu sant yàlla suñu boroom julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam sant Sëriñ Tuubaa feddali sunu taal bi ci moom di ñaan mu nagul na ko ci barkeb jëmm ji ko fi nekkal Cheikh Modou Mountakha ñoo ngi ànd ak mboolem ñi nga xam ne ñoo àndoon liggéey bi ci sëñ bi santoon ñu taxawu ko mu ngi niñ ko daan limee rek waa rabitatul madaris islami al qur'aniya fii Touba ak waa Moukhaddamatoul Khidma ak mboolem ñu aji ci jumaa ji ak mboolem yi nga xam ne yëngu ñu ngi ciy yëngu te ànd koog noonu ñoo jottali sëriñ bi sunu nuyoo ak sunu kent ak sunuy ñaan di ko xamal ni lam digle woon jàpp nañ ni lan ca man lépp ànd na noonu mbooloo mi ak taalibe yi ak bokk jullit yépp defe ko na ko bëggee woon bu dee ci wàllu alxuraan ji mboolem jumaa yi ci dëkk bi ak jàkka yi ak daara yi yendoo nañoo jàng ba waxtu wii njàngeen wu sell wu teey woo xam ne bi dara ci àdduna nekku ci muy ni mu ko bëggee woon moom gannaaw bu ñu defee ndigal la mu njëkk a defal muy tuub dellu ci yàlla jéggalu ko feddali sunu taalibe ci sëñ Tuubaa defee na njàng mi ci alxuraan ji na mu ko bëgg xasida it noonu la deme sëriñ Xamsatu mi nga xam ne moo ko daan jiite moo daan jiite njàngoom xasaayit mi wax na ne tasaare na mbooleem daayira xasaayit yi fi ñu koy jànge ñu bokk toog ca barab booba jàng ko fa yóbbu leen fa ay bernde ngir nii jamono ji demee kon sëriñ bi ñoo ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba barkeb alxuraan ak xasaayit barkeb yonent bi sallallahu alayhi li nga yéene ba tax nga sant nu lii ngir bëggal nu lu baax bëggal nu xettaliku àddina ak àllaaxira bëggal nu ngërëmul sëriñ Touba yàlla na ci yàlla defal lu kawee sa njot li nga yéene njabootu sëriñ Touba gi yéene ko taalibe yi yéene ko bokk yépp yéene ko bokk kilifa yi diine yi yéene ko bokk juddit yépp yéene ko réew mi yéene ko waa àdduna sépp yàlla na ci yàlla defal sa lu kawee sa njot noo sant bu baax di toogaat nag di dégluwaat ndigal fas yéene ñaan suñu borom yàggal la fi nga yàggaloo digal ñu yàgg jëfe seen digal te ba a jaar ci lenn looy tere yàlla na ko teewe ati at at yu baree bare bari ci barke Sëñ Tuubaa suñu borom àggale seen liggéey na nga ko bëggee ci barke Xaadimul Mustafaa waxi satil maxduum sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jëf آمين أنت الرحيم الصمد الرحمن الرحيم المهيمن المنان اكفي البلاء وجنبة الوباء وسقينا الله دائب البلاء الله حي صمد وباقي سبحان وسوقا في الواخر في كان فيه المني من كل شر وأحسن سني مستمسكين بالقياس أحمد آخر الأنام منتهر ومبتلى من قالها في سمن الوباء أمنه الله من البلاء آمين آمين jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci seen site internet asalaami point net waaye seen chaîne YouTube asalaami TV asalaami TV li mooy li nga xam ne moom lañu leen euh, jëlale woon fii ci grande mosquée bu Touba tey ji altine dëpp woon ak ñaar fukki fan ci rakaati gàmmu atum 1442 ginnaaw gàddaayu yonent bi salallaahu alayhi wa sallam dëpp woon ak lundi 4 janvier 2021 ci ndigal li nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides yàlla fi yàgg lool joxe woon na ko ngir ñu jàng fi alxuraanul karim gis ngeen ndigal li ni nga xam ne noonu lañ ko fi jëfee ci njiitalu Serigne Mamor moom Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké ànd koog rabita alxuraanul karim bi Serigne Xaali Jaxate ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ànd liggéey boobu daaray alxuraanul karim yi ak waa daayira muxaddamatul xidma bi nga xam ne ñoo yor jumaay Tuubaa ji dégg ngeen kàddu yi nga xam ne sëriñ Mamor yëkkati na ko mu nekk kàddu yu am solo waaye ñaanalaat euh, ki nga xam ne moom moo di sëriñ bi yàgg fi lool te ànd ak wér sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir waaye ñaan mbas mi jugee fi euh, ci nga fi nga xam ne moom moo di ci réew mi rawatina ci àddina bi yëpp ñaanalaat mboolem kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñooy bàyyi xel la ak mbooleem euh, internet yi li mooy li nga xam ne moom lañ leen jëlee loon fii ci grande mosquée bu Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waltaqina dalala wal idlala waxud lana maridal halala yallahu ya bari usalli bi salaam ala alladi azamtani min almalam bijaahi sayidina muhammadi wa alihi ma siabil hummadi wahab li alkitab wakfini al uyub وعلمن لي به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة